Sénégal may wax a yéen ci mbir mi ma jot ak Cheikh Béthio Cheikh Béthio ci déclaration mu ne jàkka ji dafa dangereux parce que dama ko tabax ci mbedd mi jàkka ji mi guddee quatre six mètres guddaay la juróom benn mètre guddaay la am am ñeenti mètre yaatuwaay loolu lépp mu ngi sama biir kër gi loolu lépp mu ngi ci biir kër gi minbar bi nga xamantene bi mom lay gas mo genn tout ci mbedd mi minbar bi mi genn 50 et 60 cm 50 et 60 cm décamètre baangi ni nat nañ ko ba paré man do sama serigne tay do sama serigne defal ak samay mama ki samay mamat yépp serigne basir lañu yaakar man serigne muntaxa moy serigne waye yaay sama nak ci kaw boma maye jamm bo mayul jamm nak yaangi deg lambay la dekk loo baax sa loo ko ñiir ok léegi moom Cheikh Béthio mu wax ne man taalibeem laa wóon wóon ji moom da ko yàq man bu ma nekkee taalibeem wóon kon la tax mu woon ni war na koo laaj war na ko Sénégal yi war nañ koo laaj mu ne itam ba tey ci déclaration moom mi ngi soog xam ne nekkatuma nekkatu nekkatu sama sëriñ parce que boo yoree sa taalibe bi nga dem ba jote di la soog a xamle ne nekkatu ab sëriñam kon yow ne doo daawoo ko nemme ko boo ko daan nemme ko nga xam ndax fan la tollu ci yow benn beneen point bi moo di mu wax ne itam ne Serigne Saliou moo ko joxoon parcelle yi mu jox koy taalibe ñu dëkk wër ko sëñ Saliou di jox parcelles yi fi la ma fekk kër gi mu jëkk am ci jànnatu gi ko jëkk sëñ Saliou jëkk a jox mooy ci bopp kër sëñ Saliou gi ci jànnatu am na kër gu ñu fay wax daaray kaamil foofee kër gi ci àngal ba ñu def ko daaray kaamil tey mooy doon këram cosaanam bi mu demee ba gis ne mbooloo mi ànd ak moom di siyaare sëñ Saliou bari na mu wax ak sëriñ bi ne ko damaa bëgg ñu jox ma ci parcelle ndax mbooloo mi dañoo bëgg ay kër looloo war a sëñ bi jox ko parcelle yi ko jox man booba maa ngi si kër sëñ Saaliw sëriñ bi di sama sëriñ di sama wasila bi ma tukkee ñëw daldi di am juróom-ñaari at ci tukki bi ku dem ci la 11 janvier 1990 day nekk bisub gaaw bis boobu. sëñ Abdou Khadir dafa gane si woon sëñ Saliou bu jaareem añ yooyee si ko séddale ci laa bokk 15 heures laa pare añ séddale añ ya 17 heures jëm 18 heures ma egg si Dakar 20 heures ma jël avion ci laa commencé tukki ba léegi ba ma tukkee ñëw 90 ba 96 juin 96 ma ñibbi si muy juróom-ñaari at ma ñëw daal dina sëñ Saliou ñëw naa de am naa fa doom ju góor waxal nañ la ko. ba sama yaay mi ngi daaru man naan ci kër maam Thierno mu Cheikh Awa Balla maam Thierno mu Cheikh Awa Balla mi joor jeg mi waajuru wu jigéen dafa nàmp jox ku ñuy wax fàjjeg fàjjeg nàmp ku ñuy jox wax nàmp jox ku ñuy wax ku ma ndaw ku ma ndaw moomu jur boobu sama ñaari waajur yooyu ñu ngi si kër maam Thierno Cheikh Béthio musul nekk sama sëriñ waaye defal naa ko jëwriñ ci sëriñ musuma jébbalu ci moom waaye defal naa ko jëwriñ ci Serigne Saliou Cheikh Béthio loolu mu wax ne moom duma ma bàyyi bàyyi naa ko moom du ma bàyyi lu rafet la loolu mu bàyyi na bàyyi naa ko waaye moom du ma bàyyi man bàyyiwuma moom waaye man du ma bàyyi. Euh, man gis naa ñëwum bi sama kër ay pexe gis naa si pexe gis naa si sañ-sañ gis naa si euh, doxinu la neex ndaxte bu fekkente ne dafa am loo xamante ni bii dama koo def ci ci mbedd mi wala ci quartier bi nga xamante ni bii moom la ma sëñ Saliou booleen mu jox ma ci kër lu ko neexut man bu ma wooloo dinaa sagoo sax ne eh, i seex bi woolu na ma mu di ci man waaye mu ñëw sama kër deux heures du matin yee ma ciy nelaw Ah, ba pare ne ma naa toj jàkka ji ma ne ko ci kilifteef de boo bëggee naa la ko tojal man naa koo toj ci sa daraja ak sa kàddu waaye nag comme que andiwu fanaanoo ma jumtuwaay yu ma ko tojee te yow andaale woo jumtuwaay yoo xamante ne bii moom laa ko mën a tojee kon du mën a toj si guddi gi loolu mënul possible waaw Cheikh Béthio lu jar muy wàcc otoom bi may wax loolu lépp mi ci biir otoom. bu bamtu wane dañ koy tout suite mané ko cheikh bi dimbali bu suba bayal ñu toj ko mu ne du xaar suba tout suite lay doon wa tout suite gi koku koku fan la fan la fan la ben lolu ko nañuy ben nit nonu bu andal bu bu martu sax ne ma tojal ma yëkëti to door bëgg jam waye yorul martu yorul pel machine fanano mo martu fanano mo pel machine nan la koy tojal tout suite lolu mul la nek te du nek koku jarul muy waccu ma te yëkkati samay loxo ci kaw daw dugg ci biir kër gi. jëm lépp la moom jëmmi jàkka ji moom jàkka ji moo leen bi yëpp moom dana ñu ak mbaay yàlla. ci bàyyi Cheikh na si biir déclaration mu ne Serigne Saliou moo ko jox su terrain yi mu dëkk ci ak taalibeem waaw waaye philosophie bu doon moom kese la moom cundum kër ga ko Serigne Saliou jëkkër a jox kon a la yem kon taalibe tax Serigne Saliou jox ko suuf si. bu daawut talibi seigne sëñ Saliou du ko jox penc mu tollu ni bu andu won ak mbolo seigne Saliou du ko jox penc mu tollu ni mbolo momu nak dafa am suñu xay xaay kenn la salfaañe te ban bokku na ci lambay la dekk du ma nangu mu salfaañe ma parce que jox naa ko cëram na ma bëggee baye sama cër bo Cheikh bejo lan mo waral muy and ak gàngoor ñuy xëccu ak man sama buntu kër may ba ma bëgg poñé lolu pexe la mbir mi gis na ci ay pexe. gis naa ci itam sañ-sañ gis naa itam euh, doxe nu la neex tay mooy lan moo tax Cheikh Béthio moom ak personne bëgg ma attaqué dafa bëgg man ma répondre si loolu taalibe dal sama kaw. léegi nag dem naa ci sëñ Cheikh Saliou léegi laa fa jóge yoo ko waxee mu ne ma sëñ Muntaxa jàkk ju mu yónnee ñu jullee ko wala mu julli fa àtte na boppam. sëñ Cheikh loolu la ma wax mu ne ma sëñ Cheikh Saliou nee na jàkka ju sëñ Mourtala julli sëñ Mountakha jullee wala mu yónnee ñu jullee ko atte na boppam sëñ Mountakha ne ma yaa ngi dégg demal toog te dal demal toog te dal euh, te jàpp sa njàpp sëñ Cheikh Bass Abdou Khadir demal nañ ma fa kama fa demal itam ka ko woo wax na ma ne ma Cheikh bas ne na dégg na ko incha allahu dinaa fexe ba gis ko démb am na fu nu feggante man ak moom bii ci guddi duma ko wax am na foo fekkante ak Cheikh Bass waaye comme que loola damaa ñëwoon di dox samay soxla muy dox ay soxla am bu ma bu ma ko may wax ci lu mel nii damay dem ba këram dinaa dem ba këram incha allah waxtaan ceeg moom. ok beneen point bi Cheikh Béthio waxal sa waa kër yi ak sa jëmi bopp. yaangi deg ñu and ak dal ñu dekk ci Touba Touba moomoo ko guddi moomoo ko beccëk te doo ko donn guddi doo ko donn bëccëg yaa ngi suuf ci parcelle bu lu ko seigne saliw di jox mbolo mee tax mu jox lako bokku na ci mbolo momé seigne saliw Saliou seigne saliw mo ba tax nga jox ma parcelle bi du ma fakk jëf yaa ma ko jox bi bu takka lool sab jarbat moom ma ko jaay yaangi deg rak ko soxna Mboose juuf sab aawo Mbay juuf moom ma jaay bi mu takka lool man musuma plan def fi jakka koor ak ren laa nekk bitim réew sama xel dem ci ne bu ma ñëwee dama war a daaneel pantre bi ma sànce woon lii mooy pantre bi ma sànce woon kër gi ginnaaw avant may bi pantre la bi ma sànce woon kër gi moom laa réformé jàkka du plan duy pexe du lenn 96 ba léegi mi ngi fii te musuma ko xalaata def jàkka ren laay toog ba si yàgg bi ma yónnee suukar score ci dëkk bi may wax ak maçon bi tabax sama bâtiment naa ko pantre euh, bi ñu war a daaneel nuñ koy def dugg na fii génn fii ba sama xel na yar ne ci biir communication bi mooy communication moom bu ma ñëwee nañ ko def jàkkaarloo ginnaaw màggal si Abdoulaye ma daal di si jublu ba ma si jublu damaa dem sëñ Muntaxa wax ko ko sëñ Muntaxa ne ma bu buñ sa tolloo rek nga wax ma ko nga fàttaliwaat ma ko ba ma demee ba ba pare ma ne ko damaa bëgg ko premier safar mu ne ma bu a jege ma nekk fii si juróomi fan yi mujj si safar bu ñu seen weer wi ba weer wi feeñ sëñ Muntaxa yebal war na ñëw jullee ko daal di yebal ilimaani daaru mi nag mu ñëw jullee ko man doo sabab sëriñ tey doo sabab sëriñ ëllëg samay maama ki samay mamaat yëpp sëñ Basiru la ñuy yaakaar man sëñ Muntaxa mooy sama sëriñ waaye yaay sama jëwriñ nag ci kaw boo ma mayee jàmm boo mayul jàmm nag yaa ngi dégg làmbaay laa dëkk loo baax loo baax dinaa ko ngiir